alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi leen di nuyu sëñ bi. Mhm. di leen di ndokkeel di leen di ñaanal. comme suñu mbokk mi ni mu ko ñaanee rek yal na yàlla yokk xam-xam. amiin yaa rabb yal yàlla nangu lépp incha allah amiin yaa rab ñoo ngi ñaan ci barkab jotaay bi yal nañ xam doom yaa ngi xam ne yii dañ mel na yow incha allah. amiin yaa rabbal alamin mm, waaw ñoo ngi laaj ñaar laaj maanaam te yàgg di dégg ñuy wax maanaam ci jamonoy bàyyi mm. euh, daawut am jigéen yuy zikkar mm-hmm. ñaareel bi moo di encore maanaam ci jamonoy euh, euh, danay zikkar ba. nekk ci xaal di fecc ndax loolu am na ci jamonoy baay ñaar laaj yooyu li ngay laaj hmm. waaw amma euh, jigéen ñi di sikkar ca kaw hmm, déedéet siiwutoon waaye xam nga taaliba yu taaliba fii ba xartum te dàq dara dàq mutlaxan xam nga wóorul mais maanaam daa santaanewul daal jigéen ñiy sikar di ko jaxru comme nim santaanewul jigéen ñi julli di biral seen julli santaanewul ko te itam bind na ci ca rexlaam ba cee gànnaar amoon na jigéeni naar yi ñu ci ñëw ànd ca rexle ba topp ko ba muy tudd ñi ci yoon wi daf ca waxaale ne waqarna fi buyutikunna nazala fi asrihi ci ci jamono yonent bi fi asrihi tayibi qawla man ala nee na yàlla ci alquran ju tee jooju moo waxoon ne waqarna fi buyutikunna yéen jigéen ñi bàyyi leen wëreelu toog ci seen néeg yi may tukki bu ma jigéen topp mu ne yàlla ko waxoon waa kër yonent bi te ñoo fi gënoon waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruja aljaahiliyati ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasulahu innama yuridu llahu an yudhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiran kuñ bu ko defar dëgg doo niru ñeneen toog leen te bàyyi solu di wëru yàlla daf leen bëgg a laabal bu leen niru jaahiliya mooy ku xamul yàlla alors euh, wax na itam mën naa gis fii léegi cité benn texte baay boo xam ne defe naa ne wax na ci loolu wax na ne jongoma juy sikar bokku ci li muy woote baatab xawdu soxla ko tudde xawdu hmm. nag bu fekkee ne dem nañ ba jigéen ñi sikka jigéen naari gànnaar yi amoon na ci ku tudd xuwayra moom daf daan sikkar ci kaw waaye daf daan def itam yeneen jëfu may suuf mel ni du nit daal bàyyi waxu ko dara xaw na meloon na xam ne xuwayra moom sax buñ ne asalaatu xayru mina nawmi mu ne ay yéen di fonk leen salaatu naw mu rek ñun waxuñ ko di yonent ko kooku xam nga eggagutoon ci baqaaw kooku du misaan du balance mais nag sikkar li ñu xam ci mbir na mooy góor ñi daan sikkar jigéen ñi di déglu góor ñi ñoo doon muqaddam yi tarbiya jigéen ñi ànd ak seen jëkkër yi ak seen càmmeñ yi bokk ci taalibe yi xam naa ñaari jigéen ñu bàyyi tal taqdim mais taqdim honorifique su fekkee am na moom la woon mooy yaa faat soxna jigéenu Mm, bàyyi Omar tuuti soxna bàyyi xatab soxna dafa góoroon ndeysaan góorgóorlu ndeysaan ba bàyyi ko ak yaa faat njaay bëy yaa faat njaay la tudd mais bëy bi mooy at mu jot dafa yaral bàyyi kuy mag bëy may ko bu ñu faf ko tuddee ñun xale yi faat njaay bëy bàyyi joxoon na ko lu sax booloo nag sax ci conseiller institut Nazir te jàngut ndax moo tax ma ne kon na fii la mais nag ci tarixa bi bàyyi tontu na ci ifaadatul murid ñun suñ durus yooyu muy wax fa lañ toll fi mu ne nee na am na ay muqaddami jigéen waaye nag jigéen yi jullit juñ jiital la bu xamee appliqué lañ ko xamal loolu baax la li may bañ rek te di ko moytandikuloo suñ bopp mooy buñ dem nag ba diim jigéen nekk ab course wujj gi am ci yére yi mujj egg ci wujj ci nekk muqaddama muqaddama kooku baaxul amul parce que dañ di bàyyi daf bëggutoon tàggale nit ñeeg seen njaboot yi parce que comme dem fu nekk ci daayira ci jàng ci conférence vraiment bu fekkee ne jëkkër ji ak jabar ji yëpp ay taalibe lañ seen ànd moo gën a baax suñu mënoon egg nag ci mu muqaddamati boo xam ne ay muridaatu rek ko koy war itam xëy na boobay doom xëy na mu baax parce que même jiite julli ci jigéen ñi fuqaaw yi nangu nañ jigéen ju jiit ay jigéeni kese mais du am imam ci rang gi lay nekk yëpp xam nga ay tënk la moo tax sikaru jigéen sikar baax na jigéen nag buñ ko xañee sikar ci kaw xañuñ ko sikar ci suuf te bàyyi nee na asirru li sirri wa jahrun jahru dinaa gisaat xam naa waaw des na benn boobu mooy sikar amma fecc ci tasawuf baat yi dafa am benn technicité bu ci nekk boo xam ne ku ko xamut yaa ko dul xam xajal bokkut ak raqs xajal xajal ci sunna sa xol yëngatu nga bég jóg mel ne ku ne yooyu foofu ñëwaat xam bokkut ak fecc fecc day ànd ak bànneex ak xawaa ak fo bu ko duwul rek bu fekkee du loolu kon du fecc tuddee ko nag leneen fecc fecc moom euh, li ma ci xam ci suma li ma dund mooy xam naa daal ñaari fecc fecc bëri mooy feccu céeta ngenteeg jigéen ñi kese xale yooyu fecc boo xam ne amul fay amul dara fecc ak fecc professionnel mooy li artistes yi nekkee fi mu fecc am ay milliards ay millions moo màgg rek ci fecc sol woyof fecc def yar mu neen yëpp ci fecc mais boobu du suñu bos ak nag tudd yàlla bëgg xaal waxtu ba nga xaalee yëngatu ba nga yëngatu ñun konte ko ci luñ lay konte yow waaye nag boo nee saax yi ko xëri bàyyi nee na loo def ñu xisaab la ca waaye loolu sax moom ay gëstu la mun nañ cee werante mais li gën a wér mooy ndax baay fecc na hmm? ndax signal yu fecc na hmm? baay mbay nag Cheikh Ani nag sëñ Ousmane Ndiaye nag sigi la gama loolu moo tax fecc bu amoon sax même buñ ko tollare woon matul du mat daal ndax ñee lañ ne mooy lu mat bul taxaw ci fecc ah man de mënuma fecc man dama nekkoon na nekk chef département ci benn institut supérieur ñuy dem ci ay xew yooyu ñu dem ci benn réception man maa leen dàq fuuf lu ma sol karawaat gi may sol kenn mënu ko jënd ci ñoom keroog mais ñu dem ba egg ñoom ñuy fecc am ko am ku ñëw daal ma la wax fecc ne ko lan ma ne ko man ay kanot danse kii nag mu ne ma waat mel ni ku ne woon rek mokkal ma saat fatiye ma ne mun a mu ne yow mun a fecc yow yow ku la yaa war a dàq fecc ma ne ko mais fecc mënu maa fecc ma ne ko mënu maa fecc yow loo gëm mu ne jéesi ma ne ko waat naa ci jéesi mënu maa fecc ah <laughs> ala bàyyi nag tudd na fecc parce que jàngale jàngale bugguma tricher bàyyi tudd na fecc du benn barab sax am na fu mu wax ne su ma demoon ba yàlla yóbbu ma ne mu nawara mba def lii def lii def yi mébét yëpp wax ko mu ne ba ma janoog yonent bi lii mu ne wa arqusu law anni fatan yuxsinu raqsa su ma yàlla mayoon yooyu yëpp day xëy na sax ma fecc su fekkoon ne bokk naa ci xale yi mën a fecc déjà boo xamee rhétorique da ngay xam ne ba tey tagul fecc ndax fecc ni mu yombee ku mën li bàyyi mën yëpp soo mënut a fecc mooy da ngaa bëggut a fecc da ngay dégg wax yow yow dégguloo ah, ah, ah, alxuraan wa idal mawudatu suilat bi ay zambin xutilat am na ñu déggu laay ji yàlla bés bi nga xam yàlla dana laaj liir bu jigéen buñ suuloon te deewul ñu laaj ko loo defoon bañ su bañ ray la bàyyi na dafa bëgg woon nit ñi ne ndéem ki deful dara la ñuy laaj mbataa defoon dara loolu yàlla bu ngi dégg nag bay nag bàyyi mi mën lu ne waaye laay su bëggoon fecc am na sax buñ euh, nettali ci jamonoy ibaada am na ñu ne ci aj ak bàyyi ku njëkk xam nga balaaj ma Abdou Niang borom kerse gu rëy ak ni mu fonkee bàyyi war mul salaasan ju ci aj ñetti shawtu yu njëkk yi danga mel mel kuy xaw a lagg wam ci baadu arba après na nga dox dox bu normal war mul salaasan foog nga yëngatu balaaj ma da nga yëngatu yaay sa yaram ci kanam bàyyi munu ko ñu ne bàyyi ne ñaar diikeem ba dal yëngatu ne ko ma Abdou hakaza mais gars yi buñ ko nettali pooj mañ cee boole bàyyi defu ko <laughs> maa abdu hakaza déere maa abdu ma ramlu hakaza bàyyi moom la cheikhaan ne woon fa jidduka jiddun jiddu xayrika hasluhu wa hasluka haslun kaana fi tayihi jiddu yow sa dëgg sa sa fulla fulla la sa kaf sax fulla la keneen nag dana nekk fulla sax mu fab di kaf waaw ma daal defe naa ne promotion fecc nañ def ndànk rek ñeme nangu ne duur lu mët bu ci génne kenn tarixa bi bu ci sikk taalibe kenn waxoon naa ne bu ñu dàqante ki fecc bekkee ne dafa màndi ci yàlla jàppee ko ko màndi ci yàlla mais bàyyi nee na màndi duñ ca dëkk bu bu tiimee mu ne ngànt duñ ca dëkk su su yà ñàkk ndox taxee mu tiim xanaa ñàkk ndox du dëkk ku ci nekk nag ci loo am lu tax nga def ko peut-être lay mais nag fexe ba nekkoo ci lu ñu lay moo gën mën na fi nekk di lay ci fecc ah, waaye nag beneen ba mooy wa in raqasa sakraanu aw taara munshidan fa dalika min wajdin taqaddas an labsi yu bari bayti boobu réeran na leen bàyyi na nag ku xas màndi su feccee wala mu naaw di sadd ay bayti loolu wëjdu bu nekk ci ñoom dafa koy yëngal boo xam ne kooku kooku amul njaxas maanaam lu baax la amul bàkkaar waaye ba tey ñëwal ñëwal ci balaaxa dafa ne su sakraan ku màndi feccee xam nga ku màndi toggatuñ ko jëf muy ci yàlla muy ci sharia aw taara xam nga waa ji naawut <laughs> taara mooy tëb rek bay bay taaral wax soo ko firee nag baat yi li muy firi kon wax ji duut li nga foog parce que kenn naawu ko fi mu na loolu bu ko defee wëj du la ah ku ku ku woon tëb ba bàyyi ne naaw xanaa boo wàccee xer yi xanaa dinga nga dellu ci sa sago fecc kon nag tuut man somme tuut ñàkk fecc mooy cosaan